ne mu ngi leen nuyu yéen ñëpp ñu ko Dakar ak ñu bàyyi ko ci biir réew mi de wax it alhamdulilah rabbil alamin di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm Mawlana Seydi Hadji Omar an ne moom moo tax képp nit da da dëkk ci moom da ko siyaar mu ne Seydi El Hadji Omar ne bi ko Seydi El Hadji di may wér boobu mu ngay jàng alxuraan mu ne mu seetlu di bind ba mu toll woon ba mu koy may wér di xamatu waaye ñëw na seetlu xaalawaam ji ba pare mu ne ko Bachir may naa la wér mu ne ko dee leen maye ko ma de bàyyi mu ne ko bàyyi ko mu dem diir ba yàgg ba nga xam ne moom bana alquran jàngal na ko bana ko baal alquran léegi nangu naa ne mokk na déglu naa la ko benn isib déglu naa la ñaari isib déglu naa la ñetti déglu naa la juróom isib déglu naa la juróom benn isib te moom Seydi Alaaji Omar ak boppam moo ko doon déglu bu koy déglu jukki bi mu indi moom mi militaire yi moom la sëriñ bi ngëb ba mu sëriñ bi def li ci kaaf ci jàkk ji ba génn mu ñëw fekk sëriñ bi ci mbaar mi mu ngi toog ne ko faa bëgg nga may mu wér mu ne ko basiiru li jaar sama diggante yow moo ëpp wér de de mu ne ko Bachir li jaar sama diggante yow loolu moo fi wér mu ne loolu na xamagut lum do waaye loolu la ko waxoon li jaar sama diggante yow moo fi wér damal jàpp ñëw mu may la mu jàpp ñëw tàllal mu may ko wér ne ko damale ni kayit mu may la muqaddam mu bind muqaddam gi ba mat mu ne ko Basiru du wala muqaddam li ma laay wax yow Bachiru la moom du xaali waxoon Cheikh Omar loolu la laay xaali Cheikh Omar daf ko waxoon ne ko anta min al xulafaay la min al muqaddamin yow Momadou xaali yow Cheikh Omar xalifa laa la def ci tariqa bi def ma la muqaddam yow nag Bachir anta min al xulafaay laa min al muqaddamin mu ne te booba mu da ko wax loolu ndaw la lool lu taxoon sëriñ bi wax ko loolu nee na xamut ko lu mu gisoon ci moom ba wax loolu xamut ko te ba tey it nee na mënta fexe ba xam ko mu ne ne wante fii ñu toog nii waar wiñ daloon jëm file booba la saañu si mu ngi tàmbali di pooso de satun mbar taw ci guddi naaj yu tàng jër moom ak benn rakam ak ñeneen ñeent ci ci kër gi muy bisab tam xarit comme bis bi ñu ñëw nii ñuy bay file ñu ngi taaj ndekki li da ndekki sëriñ bi dal di yegg si bokk kaamilam bi ni nam daan kaalawoo mu ñëw taaw joor ko Bachir mu ne boobale moom loolu la féetee lu mu gis ci lu ko neexul moom laay laaj ne ko Basiiru lu sabab li le mu ne ko Basiiru nit ñi lu leen tere dikk bay mu ne ko ñe bari dey fañ ne fañ war gàtt nga tey sëriñ bi dal di jàng bi ma jàng léegi fi le nekkam min fi atin qalilatin xalabat fi atan kasiratan bismillah wallahu ma sabirin mu ne ko waaji Basiiru nit ñi xëy dama bayal ba midi ma ne leen wàcc leen loolu le ku ko mën a gàttangaw xamut yéen bàyyi leen Basiiru mu jog moom sëriñ bi dem ba ca kanam waar wa bañ dog yoon wa ñu dëppaat ba tisbaar moom sëriñ baa ngi woor moom mu ne waaye ñoom ñu de bay wooruñ déedéet jaratu door mu ne soo de woor su boobaa woor walla li ngay gàttangal tey de bay ba midi nit mënu koo gàttangal mu ne sëriñ bi na ko am na benn taalibe sëriñ bi fa am gan gan gi ñetti gan la ñetti gan yi gan gu ci nekk soo bokkee moom lekk da nga dem soo lekkee ndes itam da nga dem aljanna mu ne sëriñ baa ngi leen di nettali loolu ci waar wi ah, mu ne bi gan ñi ñëwee sëriñ bi jàpp ab gàtt toggal leen añ taalibe bi mu ngi gàtt ngaw sëriñ bi woo ko ne ko foobal xañ bi lañ nga yot gan ñi suñ la ne xooyee ne la ñëwal lekk dogal sa koor gi dem lekk dem lekk ak ñoom taalibe bi dal di yenu ndab bi mu ne xam naa ku maslaan ñëw taaj ndab yi ñëw ubbi ndab yi na ko ñëwal ñu añ ñëwal lekk taalibe bi ne leen man de faa woor gan ñi kenn ci ñoom ne ko na nga dog bokk ak ñun ñu warlu la koor sa diirab sa dund bi nga ñu warlu la ko koor mu ne leen ah man daal ci gàtt keneen ki na ko dogal aljana rek ci nga bëgg a dem danaa la warlul aljana mu ne leen ah man daal ci gàtt mu ne loolu sëriñ baa leen koy nettali ci waar wi keneen ki ñetteel ki ne ko dogal mu ne taalibe bi ne man de faa bëggoon ngeen jégal ma suma koor gi bëgguma koy dog kooka leen ne ko sa digganteeg yàlla lu ci nekk man ma naa warlu loolu le mu ne leen xañ leen dal di jóg dem ba mu demee ba mooy dugg ci néeg bi sëriñ bi woo ko yow ndab yi ma la joxoon ñu xoolal la tax nekkul ak ñoom mu ne ko ah ci nga laa ne sëriñ bi ne ko ah soo moytu da ngaa mujj ga ñaaw de soo moytu danga ngaa mujj ga ñaaw de mu ne te loolu la wéy na ñele lañ warlu xaal bañ tollu woon biñ koy warlu day monté ko wàcc day deñ su deñee ni mooy def delluwaat te ñoom du ko sottal mu ne keroog sëriñ bi nett li leen leen noonu le moom mu déggee ca wax ja ne ñëwoon ca waar wa loole day wéy waaw waaw day wéy mu ne mu déggee ca loole le mu ne ndax waxi noonu loolu la niru ñoom ña nekkoon ca waar wa lele mu leen ñaal mu leen ñaal ndax li tax mu misaalal leen loole mu ne loole mu ngi leen ñaal nee sant na yàlla bu baax nee taalibeem la woon it taalibeem ne hit ndax sëriñ bi noon na ko Basiru dool sama taalibe dool sama taalibe maa jur waaye dool sama taalibe loole do sama taalibe moo ëpp ci yow njëriñ mu ne waxoon na ko loolu le mu ne waaye koog lim da moom kenn du ko do ci moom mu ne sëriñ bi noon na ko yow de bi ñëpp demee ñëpp dem kenn nekkatu fi mu dégg na ko bàyyi ma ni day faa bëgg a dem fi mu ne mu ne ko ah Basiru yooyu tamit mu ne yooyu yooyu tamit nga xiir la ko sëriñ ba damal toog nekk ma mu dem toog ab diir mu ñëw kumpawaat ko mu ne ko waaw bisimilaay mu ne guddi gi mu wax xarmalee ne suba laay dem sëriñ bi woo ko ci guddi ne ko déedéet de Basiru yow de bëgguma nga jaxasoog kenn kenn kenn ku dut man mi la jur Alaaji Omar Basiru naa la doy nga jaxasoog man Basiru bu la kenn waxal dara bal bu da xamee ci kenn lenn ñi fi boo dem kenn du la ci raw toogal Basiru nga déglu ma mu ne mu toog deglu ko mu ne ñàkk dem nga métti ko te suba ga bi mu ko mu ne ko ba Bachirou demal toog kenn du la raw del bind dama yot muy bind da ko yot muy bind roobo bu seetee ba pare na ko woo oh, góor de ba mbiram roobo jeex ba mu na ko mokk mu ne ko demal dal téere yi wala mokk mu ne ko demal dal téere yi mu ne sama baay moo ko dalal téere moo ko dalal Laxdari mu mu ne wax wax na ko demal dal risaala mu ne risaala ci la commencé jàng kunoos lay bind kuroos lay bind da ngay fekk rek jokki mu ne lam ko waxoon ne ko kenn du la raw dëgg la de mu ne kooku la waxagut ko lenn lim xamagut mu ne loolu de mënu ko waaye li nga xam ne xam na ko ci lim ko doon wax mu ne loolu la ñoo wax waaye lim ci xamut ci lam ko doon wax mu ne fa bëri lu taxit xamut ko loolu la moom moo ko doon wax rek moo ko xam moom dong moo ko xam mu ne kenn du la raw ji teg na ci bëtam bi loolu la gis na ko mu ne ko ko jërawut dana am lu la lënt nga dikk ci ko mu laaj ko ko mu ne kon xanaa raw ga dañ na mu ne dem nañ diggante moom moom ci la ne mu ne ñun taalibeem lañ moom taalibeem Seydi El Hadji Omar la mu ne suñ demee ñu nit bu ñu neexee wax suñ digganteeg moom waaye moom diggante moom sëriñam la ñoo wax diggante moom sëriñam la ñoo wax mu ne kenn ku mën a wax ne moo ma wax nangam moo ma waxal nangam mu ne loolu la amut kenn koo xamante ne mën naay wax ne Cheikh Bachir maa ko xamal wi araf ku mooy El ko la amut lépp lu mu xam wala joma ndaw ko xamal mu ne keroog ba ko ne baasin mi mara ba ba mu ko minal jinnati wa naasi mu ne ko alquran ji baax na léegi kenn waxu ko dara de lépp Seydi El Hadji Omar la ci mbaaxam gi ak yërmandeem ji ne moom mili du fa ko defal lu ko jar lu sabab loolu léegi xamut ko ne mas na ko wax ne ko ragal naa lañ tuumaale woon Yaqoob ca Youssouf ñu tuumaal ma ko ci yow de Basiru mu ne loolu la xamul lu tax mu ne waaye loolu la góor gi waxoon na ko mu ne diggante moom moom xool na lool xool na lool mu ne daan na ko wax ne ñu ma dajeet ñëpp ak ñi ma digaaleen ci yàlla lu ma leen masa xamal li ma la xamal Bachir moo ëpp jox ma cër jox ma cër kenn du sa sëriñ Bachir maa di sa sëriñ de mu ne loolu wax na ko ne téeréem bu jafe la bu jafe la mu ne mos naa dégg mu ne ñoom ca doon waxal dara mu ne leen Bachir de su fi moom de dana xam li ma wax de. li may wax yéen de xamu leen ko waaye su fi fekkoon Basiru ngi fi dana xam li may wax moom mu ne waaye dëgg la de mu ne téere boobu li defut ci benn secret bu mu ko xamalul defut ci lenn lu mu ko xamalul mu ne waaye ko wax de waaye du ko wax de mu ne la ca nekk ci askar kenn xamul nu mu yem mu daal mi neefam yàlla mu ñu yàlla indi lool waliyulaahi la mënu ko romb ndax nu boobatu jeex na dootu am li fee neeti moo de waliyu waaye wali yi dafa dem ba yegg foo xam ne jege na nu boobatu waaye doo ko doon nag waaye sori na de mu ne ñu ñoo wax fi la ne ay uway soog ñeneen mu ne suñ góor gi bokkut ak ñoom de kenn ci ñoom bokkut ak moom ku ci ne bi ngay jogat xam na ko do ñu xam koo do xam na foo jaar mu ne ñooñ le ku ci ne bi ngay jogat ñu xam yaay kenn xam na foo jaar waaye ñun de suñu waa ji jaar fenn kenn koo xam ne man na ko wax na ko Omar Ndaw maa la def nangam wala maa la wax nangam mu ne loolu la amut ci sëriñ si bañ jeex amut ne am na sëriñ ndax tariqa jàmbur ci la nekk loolu moo ko dugal waaye diggante moo yàlla kenn ku ca doon dara amul dara Seydi wu joot sallallahu alayhi kenn du ca dara ku mooy Seydi wu mu ne moom mi la mos na koy wax ne faam ñuy wax ne naanu xamsatun laa cheikha lana illa Seydi wu joot ñun de juróomi nit lañ ñun kenn du suñ sëriñ ndara yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ko ay basiru ñooñu ne juróom nañ yëf yëpp na loolu ñooñu la bëri nañ de ñooñu dafa ñoo wax rek waaye du ñoom rek de du ñoom rek de mu ne mu xam ne kon ca la bokk mu xam ne ca la bokk mu ne li tax mu xam ne bari nañ du juróom rek fa ca bokk mu ne juróom ñooñu le ñoom xamoon nañ sëriñ waaye biñ digaalee ak yonent xormaal ña doon seen sëriñ moo fi def. waaye digaale tuñoo kenn ku dul yonent bi mu ne ñooñu la xamoon nañ sëriñ ñoom ñoo xam ne ñoo leen yëkkati bañ mën a gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaye bokkut ak ñoom de ne am na benn waay doon ganak si alaaji tafsir dem maslaan mu ñëw ci sëriñ bi yëkkati benn tur yàlla tur wa ismu jalaal la jox ko sëriñ bi fekk waa gan gi am na fi ay fan mu ñëw fekk sëriñ fi mu toog ci mbaar mi ci cempeteng si mu yëkkati kayit bi jox sëriñ bi ne ko kayit bi ne day sëñ bi faa bëggoon nga seet koo hóolu mu mën a bind lool nga jox ko ko mu sotti la ko nga boole ko ci li ngay lawraat mu ne liggéey goo wax wax léegi waykat bi du jàggati du jàggati kenn mu jël kayit bi moom sëriñ bi teg ci peggam na ko su ma ko sottee daa la delloo sa kayit bi fi mu toog moom mii la ko ma di fekk na ko sa bàyyi na nga woyu ko mu ñëw mu ne ko ba Basiru seetal kayit boobu la demal nga sottil ma ko moom de ki ma ko jox fa ne naa seet ku ma wóolu mu sottil ma ko ma boole ko ci sama lawraat moo ndax moom xam na li ma li may lawraatee ba xam lu ma caay dolli ndax xam na li may lawraatee moom ba mu dama dolli mu ne ko ki jox ma kayit bi xamul ma de man daal duñ ma xam mu ne moo kere loolu la man daal duñ ma xam yetti yoon wax na ko waaye demal sotti kayit bi nga yéen ma bi ñooy bëggaañ la dem mu liir ko ba pare ne ko fabal kayit gi tegal ma ca lal ba dem denc kayit bi le mu ne ko gis nga ki la jox ma kayit bi li may wax kat diw ak kat diw ak kat diw ci këri lawliyaaw yi mu ne ñoom day lii lañ def lasam waaye lii du lasam allahu akbar mu ne leen mu ne ko lii la lañ def lasam waaye lii du lasam de du ko de mu ne ko Bachirou bal sikar ni le fon ko defit bal ko xoolati mu ne kayit boobale fu mu ne fi mu ne ci kayitam yi xamu ko ndax boobale téere yi mu doon jàng ca la ko def te yu ci bëri xar nañ moo ndax koog le duhut ku ñooy dolli ku ñooy dolli faam loo mankile waaye mankile hut moom bañ da ko dolli te ki ko wax moom gune la su fekkoon xam na dëgg dëgg dëgg du ko wax foofale mu waxee ko ak fa bakkanam di jeexee matut ñaari weer moom waa jooj le ne matut ñaari weer mu ne duñ ko jàggati de laa hawla wala quwwata mu ne ko le koo xam dëgg dëgg dëgg da nga ko ragal dëgg ragal dëgg ragal da nga ko ragal fi maqaamam toll fi yàlla fi maqaamam toll ci Seydi wu Joor sallallahu alayhi wa sallam te yaar yooyu le moo de maqaama lii sa des du maqaama ndax saytaane fa caa am cër waaye yàlla saytaane du fa am cër Seydi wu Joor saytaane du fa am cër yaar yooyu la dajale. yaar yooyu la dajale xame wut leneen yàlla kese moom la amee ne bi mu juddoo ci ndaama gi li baayam ko quraan bem man ko tafsiral ko ko bem mat baayam genn jamaano mu dem jaamal ba mu fa bàyyi ko dikk ngam bi ñëw mel na ndawet ba mooy bawoo ndaama de dem jaamal wali yu kaamil mat sëkk boo moo leen maqaamam fardaani yetu ci la toog jekki bay def yow àqit naan te dooga bind ne waaw dani rabbi min ifraadi ummati al xilaafat nag ma boole ci ñooñ le fekk na ba mooy demat jaamal jekki ne ci maqaamam moom le diir ba yàgg te booba gone la mu doog dem foofale bi mooy del si waat fi le ñu tëj ko ci maqaamam xutbaaniyet mu ñëw ba mer ne ndawen mu jot fatul akbar rasulullah feeñu ko te dootu ko xiidu mukk mu ne loolu la yow mu dewaa ji mu ne moom kenn waxalu ko moom moom ak yàlla képp mu ne ko basiru fi ma jaat foom moom laa laay waxal madina mu ne géejaan googu le mu ne moom boobu la fu géejaan ne sax xamu mu ne ko géejaan goog li ma la wax Basiru mu ngi fi dàgg ci ne woon foo la daal falaataan law raatee ngoon biñ julee timis fi ñoom fi ma toog bi maay toog mboolem xaalam bi kullu fam fañ ko indi teg mel dañ ko teg sama tenqal loxo dara réeratuma dara xeetu xiidiwul ma ak loola fu mu a ne dara xiidiwul ma mu ne ko bis boobu le tiit naa waaye tiituma mu ne ko déedéet doo tiit de yow mu ne li sotteeku ci man lum do loolu la xaw ma ko ni mooy sotteeku ak xam-xam yi man nag kenn xamut nu mu am de sotteeku ba nga xam ne fi ne leer jot reer jot na mu jóg ne naa dem balañ maa néeg reer bi mu duggee néegam yëf yi mel ne day gën a boobu nga toog maam fekk boobu la mu ngi toog ak nijaayam. maam Ndiogou Bamé. ndax ñooy bokk reer. sëriñ bi na ko suma nijaay. mu ne bi la ndam naam. ko ah, ah, man de doom gisuma. mu ne ko nijaay. nee baa ngi fees dell ak leer. mu ne ko yow de xanaa yaa ko gis. mu ne boobu lay nijaayam Ndiogou Bamé ko cere ji. par benn benn benn par benn pepp ak cere laa koy gis par benn pepp ak cere laa koy gis dara xiidutul ma médiaay dara xiiduwul ma maam yokku yokku jëlaw ca kaw mu ne loolu sëriñ bee ko wax moom moom dong ñoo toog mu da ko wax loolu mu ne moom it ka xawoon na sob la mu ne sëriñ bi moo ndax fayru lanwaar bi ñoo ndax moom dana fekk nit ci wanag ndax nit dana ko xamee xame sobe mu ne ko Basiru kooku la sobe sobe du ko laal boo newoon ca kama du te gële mu fekk la fa waaw sobe du ko laal sobe du ko laal mukk mu ko bu ma toogee fi la yor-yor man kenn ma ne fi nii la maay def dama su ma jógee dugg ci néeg sama yaari loxo yi laa di tàllal ñu naan ma salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum feeg nit duggut du ma am jàmm Bachir feeg nit dugg rek du ma am mu ne loolu moog sëriñ bi ñoo toog ñoom ñaar képp mu wax ko mu ne ko loolu bi ma dikkalee loolu bi ma dikkalee ay fan lañ ma tàggee bàyyi alaaji moo dramé bu booba mu nga caaxumaati ñu tàkkee ku ko ci timis moo taalibe yi ne faa bëgg a dem caaxumaati ca dëj ba mu ne mu ngi lëndam këriis mu ne ko sa fasu nijaay alaaji kura moom lañ ma takkal bi may yéegee ci fas wi niw ba ca caaxumaati fañ ko tëral malaaka yi ci dalee ci néew bi ba fa fañ koy gasal ba ca xabru ba maa ngi leen di gis fi ma toog dëkk dëkk bi li ñooy wax alaaji moot maa ngi koy dégg ñu ngi ko naan waay waay alaaji moot fag ñoo sonal sëñ daara du dikk sëñ daara du dikk ci guddi gi le mu ne loolu le fi maay war fas wi ci mbir na maa ngi dégg loolu le mu ne ñoom xamuñ ne man dara humpun ma ah, waaw xamuñ loolu de wallaay xamuñ loolu mu ne ñoom xamuñ ne man dara humpun ma mu ne bi ma loolu la jotee koogle moom lañ njëkk a tëral ma taxawee ko mu ne koogle am na sens wallaahi am na ne noonu la de mu ne duut ak nit moo ko jox aw askar dara feeñu ko mu ne kon mu yuuxu de waaw waaw waaw mu ne su fekkoon nit a ko jox dara mu dem jëkki foofu la da yëngal loolu le ba loolu le feeñu ko kon mu yuuxu ah mu ne waaye kenn jaw ko dara de yàlla rek la daje kenn du sëriñam ci loolu le ndara Seydi bu joot sallallahu alayhi wa sallam mu ne koog li li nga xam ne moom la ko yàlla jox ci secret ku mën a wax ne maa ko ko jox xamut kum daje tiit nga wax ko ko xamut koo xam ne mbindeefam yàlla nga mbindeefam yàlla moo xam ne doomu aadama la xamut ku ci mën a dajeeg moom na ko maa la jox nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku lay taal moom la digaalet moom la digaalet ci mboolem li mu xamee ci ay asraar ne dem na ba tariqa bi mu bokk na ba yegg si fi foo xam ne ña fa yegg si bëri wuñ <laughs> waaw mu ne fa am loo xam ne moom bu ko xel dajee it lamiñ du ko wax moom fañ koy nëbb waaw loolu moom fañ koy teggi mu ne ndax moom ci boppam su fekkoon ne moom mi la ñeme naa wax loola le sirub bi mu amee benn sirub bu dikk bosam dana la duubal ay yoon nde ni demee moom ndax siru mu ngee topp ka joxe siru ba mu ne siru mu ngee nit kii kat joxe siru ba moom lay topp ne boo gisee salaatul faati mu ngi wàcc ci bakri yu bakri yu surtout Abubakar la moo doon def xalwa ci masjidul haram yàlla jox ko salaatu boo xam ne dana jiitu salaatu yi yëpp ñu wàcceel ko leetar boo xam ne leer la kayit soo ko ngëbee genn wàll gi ci wàll gi ak la gële benn laay doon. mbind mi ni mooy feeñee nii noonu laay feeñee ci benn gannaaw. ñu ne ko lii ne ku ko jàng benn yoon. muy sa njot. doo dem safara mukk. moom salatul faati. mu ne lool le moom la ci kile am. bakri mi ko moom. moom mi nga xam ne ci moom la wàcc. mu ne waaye moom. fa wàcc moom. Cheikh na Tidiane ki nga xam ne moom ki gën ci nit ñi moo ko jox. loolee tax ñu fulalee ko ko niñ ko ko fulalee mu ne bokkuñ ful mukk bokkuñ ful ndax ki joxe moo moom ni ko neex la koy joxe ni ko neex mu ne boo demee Europe tey xaalisu Europe bi ak CFA bi la nga xam ne moom lañ ñu defal ñun jox ñu mu ne ndax ñooyam xamuñ de te yëpp xaalis lañ leen di tuddee yëpp xaalis la tudd te mënulaa fexe ba benn ci du tudd xaalis waaye xamuñ weccet de mu ne loolu le moo tax kii joxe dara jaam ci la ñoo fulee li lim joxe mu ne loolu le moo tax lim xam ñi ko am bëriwul mu ne ma xaamaam daal neexut a wax mu ne su duggee ci ma xaamaam du ca ñeme ne du ñeme mu ne waaye day wax ne jarut benn taalibe boo ko gën a xam mu ne ndax li ma wax moom moo ko wax duhut lum felantu duhut luñ ko nettalil du felantu wax lum xamut bu koy wax it wax fu koy wér ne li moo ko wax te lim wax ni la moo ko wax loo xam ne mos na ko nett ko mu ne gërëm na yoon wi sant na it yoon wi mu ngay ñaan yàlla ñu yokk yokk ga mat sëkk sëkk suñ siifar bu xalima mën a bind ndara genn xalima ki nga xam ne wan hasaral xalq afradan tuhaddidum fi wasfel mi ka mu ne yàlla ki nga xam ne lépp dara réeru ko mun ta wax ne suñ sifar moom bu mu ko xam waaye nañu def ñu ne modd bëri lool modd ci lim modd ci poche yi fees tel coffre-fort yi fees avion yi ñuy ci dugg de yéeg de wàcc de naaw de dem ak a dikk conteneur yi da ñëw magasin yi di ubbeeku suñ xol yi sedd suñ xat na baax suñ àllaaxira baax mu ne loolu la bëgg ci ñun ne moom nag moom it mbooloo si boppam la amee Seydi El Hadj ko dagal askoñ moo ko dagal tool ne moo ko dagal tool de ku nangu dugg ci toolam bi yaa ngi ca toolam ba mu ne waar wi doon bay file jogagut fi de wi mu doon nettali nee na woow la jogagu fi de jogagu fi de ne moom at mi mu ko njëkk a defaral néeg file mu war a jël jabar ñaari néeg keroog ba ñooy xëdd néegu ba xëdd ba matee ñu añ ca biir néeg ñu xoo ko moom sëñ bi mu ñëw jonkan ci buntu néeg ba mu dikkee lu mu njëkk a wax na ci jaam yàlla yi dey ku leen sumil dàll da nga demal jënd ku leen jàllar bil dàll danga dem demal jënd ku bokkal ñoom lekk da nga dem aljanna ku lekk seen desit da nga dem ku dégg seen tur yu bëgg leen da nga dem aljanna mu ne loolu am na ci jaamu yàlla yi te moom lañ doon liggéeyal man lu tax sëriñ bi wax loolu ne moom xamut ko mu ne kooku nag kooku la moom la wax lab daal mu ne kooku la lab daal lañ koy wax mu ne lab daal kenn la ci lawlu yaaw yi ñeent fukk la ñooy dox képp ñeent fukki yi labdaal yooyu la su fekkee laqataa bi kenn fa ci genn jamaano mu labdaal moom moo de wat ca labdaal yi la jël kenn mu wutu xutba bi ñu seet ci saal yi ne def ci jël ci kenn def ko labdaal mu ne lool loolu la sëriñ mu ne moom wóor na ko ne sëriñ bi moom boppam taxul muy wax ndax moom duñ ko wax dafa lab daal ah kon ña fa ne la woon mu ne tey foog na ne moom waxut ko waaye yow fa foog moom mu ne moom fa foog ne moom waxut ko moom waaye sëriñ bi moom woor na ko ne moom boppam taxul muy wax boo waaw waaw mu ne moom wóor na ko ne boppam taxul muy wax ne xam na ne moom duñ ko wax de wax lab daal moo ba moom bi romb na ma xamam lab daal ndax fañ daan wax sëñ bi booy ñëw loo xalaat booy yegg see rek ci loolu laay wax mu ne ma xamam la bal ki wax ne moo fi wut oys mu ne xamut oys ma xam moom toogee oys bi mu dajeeg wali bi ko doon seet ba mu ko nuyoo yaayam ak baayam la ko njëkk a ko ku ma xamal mu ne ko nafaani alimul xabiir yàlla moom la xamal mu ne loolu ma xamam la daal la xamul nag ma xamam fu mu xam na nag xam na ma xamam ba xëpp sax ma xam ma xamam moo tax yonent bi ne Seydina Omar yaag Seydina Ali bu ngeen dajeeg Uwaysu na leen balul yàlla ma xamam mi Uwaysu amee moo boobale it moom yonent bi faam du mu a feeñal bu Uwaysu dajeeg ñoom bañ ko songee ci wax lañ noppi ndax fañ dugg ak moom ci wax joo xam ne ñoom looleen du seen yëf bañ dugg ak moom ci wax way su ne leen lan taraaya min rasulillahi illa sillaw yéen gisu leen ko de mat gisu leen ko de yéen gisu leen yent bi de yéen keppaar ka ngeen gis yent bi amul ker boo taxawoon fële ca naaj wa takk ndeer du génn ci moom ndax moo gën a leer jant bi waaye lan ca jublu mooy yéen jëmmi mamat ji ngeen gis mu taxaw da jëmm waaye lan na ca biit yéen gisu leen ko mu ne waaye ñooñ la mu da wax ne gisu leen ñoo ñoo ko gën a gis de ñoo ko gën a gis fuuf ndax ñooñ le ñoo tax uway su gis mu ne wante lam jublu moom mooy xaqat mamat yee la jublu ñu ne ñu ne ko ah ñun ñaar de d'accord waaye ndax Aboubacar mu ne leen Aboubacar it kenn ci yéen gisul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne la mooy yootu moom ak li ñi la de yootu moo bokkut ñi ñoo ko gën a xam yonent bi bu fañ bokkut xam fañ bokkut xam mu ne ñi fañ dugg ci musrik ndare Ali ibn Abi Talib moo mas a nekk ci musrik wante yent bi nee na jant du tiim ku gën Abu Bakrin Sadiq jant du tiim ku gën Omar ibn Xataab jant du tiim ku jant du tiim ku gën Ali ibn Abi Talib xanaa kon jant dana tiim ku gën Uways xanaa kon tolloowuñ xanaa kon tolloowuñ mu ne tolloowuñ mu ne waaye lam jublu moom waliyu laay bu na ko na ko buñ ne lem gaa nga nale bala nga cee lekk fa nga wut semmi na safara gor ba jot lem nga génn yëmb yi dala mat nga seex ñu mat la ci làmmiñ ñu ne ak ak ki fekk yëmb yi ñu nemm ko ba mu mat na lem gi mu mos si lem de neex na mu ne niroo wut ak ki amee woon safara si de yëmb yi da ko mat ci làmmiñ mu ne niroo wuñ de mu ne kile lem nga neex moo ko sab kile balaa ngaa jot te lem la ngaa daj loolaa ko sab mu ne loolu lañ wutee ah, wallahi mu ne loolu lañ wutee mu ne bokkuñ de mu ne bokkuñ de taalal leen waaw mooy kat bi de